jàngeen jëf euh, mbokki internet yu Buzz SN dañuy ñëwaat ak yéen ci seen écho du jour dañu koy dooree ak ki nga xamante ne si moo di euh, kii di dàmbooj euh, bokk nag ci militant yu Pastef yi woon moom mi nga xamante ne si nag moo di kon daal ginnaaw bi nga xamante ne si kon ñoo ngi jàpp nag ñi nga xamante ne si daal ñu doon dubal alalu askan wi daal moom li mu gis daal moo di kon nañu jàpp kon ki nga xamante ne moo di kii di monsieur Macky Sall nag mi nga xamante ne si moo nekkoon fii ci réewum Sénégal nag jiite woon mën ko eh, ndax kat nee nañu daal lépp loo xamante ne si ay ñaawteef la yoo xam ne na ci rek moom moo ko daan digle waaye nag waruñu jàpp kenn eh, ku bokk si moom la eh, tege a jëlee foofee nga xamante ne la moom daal mooy di gis-gis boo xamante si am na ko nag moom mi nga xamante moo di dàmbuñ nag ba tey ñu wax ci li nga xamante si moo di président bi nag bëggoon ko ah, ngir nag li nga xamante mu dund Sénégalais yi nag yomb ak bi nag mu mel ne kon bis naka ginnaaw suba daal la joxe woon boobee la nag muy 15 mai euh, tey ji nag di la 13 ñu bari nag jàpp na kon bu loolee dana ci loolu euh, mu gën a euh, yaakaar nag nee nañu daal kon li nga xamante ni si moo di wàññi googe daal nee nañu kon des na ko fësal kon daal nekk ginnaaw suba nag wala kon daal ak lajj dana ci am jëmee ko ci li nga xamante ne moo di état bi nga xamante ne si moo jëloon yooyee li mesure nag wàññi kon li nga xamante ne si moo di boobee la dund ak li nga xamante ne si nag moo di ca courant bi mu taxi ba tey kon li nga xamante ne si kon moo jëm ci wàllum pétrole bi nga xamante ne si ak ne moo dox kon ci diggante Mauritanie ak bi nga xamante ne si moo bi nga xamante ne si nag ñaari njiit réew yi kon daje woon nañu ngir waxtaan ci loolee nag mu mel kon daal kon bato bi nga xamante ne si a na kon ni li nga xamante ne si kon moo di expo kon loolee nga xamante ne si moo di boobee la gaz nag fi nga xamante ne si kon moo di ci euh, réewum Sénégal mu mel ne kon daal euh, mbir maa ngay xeeñ neex euh, ndax accord yi ba indiwaat beneen beneen kon explorateur boo xamante ne si kon moo ba daal ma nga caaw diggante waax yooyu kon daal ngir ne moo exploitation boobee nga xamante ne moo ne si kon moo nekk ci diggante Mauritanie ak Sénégal ñu ñëw wax ci coowal milliards ak millions yi nga xamante ne si kon daal scandale bu rëy la boo xamante ne si kon daal doon nañ ko def kon ci li nga xamante xamante ni si kon moo di ci euh, gouvernement bi nga xamante ni si ci lañu génn nag yi nag di ay maire ñi di ay ministres yoo xamante ne si kon daal euh, Cour des comptes nag génne na ñëpp nag euh, sumi seen i mbubb nag ñëpp daal rek ci suuf nag ngir càmbari seen i mbir nag benn par benn ñu doore ko ki nga xamante ne si kon euh, moo di euh, maire bu euh, Tamba moom nag di wuyoo ci mam Mambala moom nag li nga xamante ne si daal moom lañ koy toppee daal kon nee na benn séminaire daal la kon la organisé woon daal lépp nag toobal kon ci juróom-ñetti fan yoo xamante ne si ab séminaire la organisé woon lu mat quatre-vingt-un personnes ñoo fa nekkoon maanaam juróom-ñetti fukki nit ak la fa moom la daal kon daal mu fakkiire kon dund ga maanaam ceeb ba nga xamante ne doon fa lekk daal kon nit ku nekkoon mu ko fakkiire ko quinze kilos kilos maanaam chaque jour kon nit ku ne dinañ lekk 15 euh, kilos yi nag ginnaaw bi nga xamante ne kon daal euh, loolu def ci sous boobu nga xamante ne kon def na ko foofee nga xamante ne si euh, moo di ca séminaire boobee defee kon lépp lépp kon di 10 tonnes maanaam 81 personnes yi daal ku ci 8 jours lépp lépp nag nekk 10 euh, tonnes moo mel euh, euh, lekk 15 kilos yi ceeb ba lépp nag war dem ci kon di 10 tonnes yoo xamante si kon daal moom mii di Mame Balla Lo kon moom lañ koy toppee ba tey ñu ñëw ci maire bu nga xamante si moo di pla maire bu maire de plateau di ci Alioune moom nag diggante bi nga xamante si nag ci la nekkoon maire bi nag waaye nag diggante 2016 euh, moom mi nga xamante ne si nag nekkatoon na li nga xamante ne si euh, ki nga xamante ne si ko moo di ministre de la euh, moom nag li nga xamante ne si kon daal moo di complexe bi nga xamante ne si kon moo di scolaire bi tudd ci Bibi Ndiaye moom nag kon dañ caa yokkoon li nga xamante ne si kon moo di 654 euh, euh, millions yoo xamante ne yoo xamante ne kon daal nee nañu euh, da nga caa dolli woon te kon yoo xamante ne kon daal nee nañu dañ ko doon joxe 423 kon yoo xamante xamante kon dañ koy joxe nag ci li nga xamante ne kon eh, eh, eh, ne si tamit amaat loo xamante ne si kon daal accord de licence yoo xamante si nag ak pes yoo xamante ne si kon da ko signé woon ci atum deux mille vingt deux mille kon li nga xamante ne si kon daal kon signé na moom mi nga xamante ne si kon moo di moo di kon Alioune Ndoye ak société bi nga xamante ne si moo di Maritime Limited moom nag dañ ko si moo leen signé woon li nga xamante ne si kon moo di boobee

ndax ñoom nag nee na gisuñu ko nag ak li nga xamante ni si kon moo di 423 millions yoo xamante ni si kon dañ ko defoon ci ay billets eh, yu yu màkk yoo xamante ne si na xamuñu leen ne si kon daal Euh, nee nañu daal ñooñu xamuñu leen lépp lépp nag daal nee nañu euh, kooku nga xamante ne kon euh, moo di Alioune Ndoye mi ak nga xamante ne kon daal moo di Cheikh nekkoon foofee nga xamante ne kon moo di ca ONAS ñoom nag li ñu wax daal moo di kon 30 millions yoo xamante ne kon daal danañ ko def defoon nag kon ci tamit benn benn conférence de religieux boo xamante ne si kon euh, amoon nañu ko nag euh, li nga xamante ne si daal kon moo di euh, benn boo xamante ab conférence boo xamante ji da jëmoon ñu def fa nag lu tollook trente millions waaye nag bor abor yoo xamante si nag de Noël la maanaam arbre de Noël maanaam ay garab yoo xamante ne si nag ci Noël bi la woon nag ñu def ci lu tollook quatre-vingts millions quatre-vingts millions ba pare nag colonie de vacances nag ñu def ci kon quatre vingt nga xamante ne si ay salaire la pour ñi nga xamante ne si ñu daan liggéeyee fi nga xamante ne si moo di ca euh, ONAS euh, euh, fa da nga am ko faatu maanaam sa mag wala sa rakk wala sa baay wala sa nijaay nag moom daan la jox deux cent cinquante mille waaye nag bu dee nag benn agent boo xam ne daan liggéeyee maanaam koo xam daan liggéey ci biir ONAS nag moom cinq cent mille kon lañ daan jox nag ba pare nag teg fa enveloppe boo xamante ne si pour ñu bëgg a la nag tolloon ci li nga xamante ne si moo di euh, cent millions waaye nag euh, boo koo xamante ne si kon daal am na bor boo xamante si euh, kon ko jox kon lu toll ci quinze millions waaye nag deux cent millions yoo xamante ne daal ba ñi nga xamante ne si kon ñooy bale ak si kon ba tere tax-tax ya am foofee ca ONAS nag ba pare nag kenn du ca fay ndox nag képp koo xamante si kon ca foofee ngay liggéeyee foofee ca ONAS lépp nag dox kon ci diggante ki nga xamante ne si kon moo di Mamour Diallo ak ki nga xamante ni si kon moo di Abdoulaye Balde nag nekkoon maire bu Ziguinchor moom mi moom lañ ko toppee nag di ay centaine de yoo xamante na si kon daal nekkoon na maire boobee nga xamante ne kon moo di ca Ziguinchor lépp nag di rapport yoo xamante ne si kon daal Cour des comptes kon ñoo ko génne nag jëmee ko ci kon li nga xamante ne si kon amoon na ci Eh, biir mi nag li nga xamante ni si daal kon ba tey ñoo ngi wax di coowal Prodac nag eh, mu mel kon daal kon coow la kon wulliwaat na ñaay nag si li nga xamante ni si kon moo di ci réewum Sénégal mu mel kon daal rapport Cour des comptes nag kon nee na daal des na ko fësalaat bu baax baax baax jëmee ko ci Prodac boobee nag ndax ñee daal lépp loo xamante ne si daal am na fa kon daal des nañ ko génnee nag nu mu gën a yaatoo euh, ba tax na daal kon ñi ngi doon ca Prodac nag ñëpp na ci Prodac boobee euh, moom nag kon daal mu mel kon daal des nañ taxawaat ci kanamu yoon ginnaaw bi nga xamante ne si kon daal moo di kon ñi nga xam ne ñoo doon Prodac nag ñu daal ñëpp kon daal des nañ ko génne nag nu mu gën a yaatu nag ndax kat xaalisu Sénégal dañ ko bàyyee nag euh, mu naax mu naax saay ci li nga xamante ne si euh, moo di ci biir yooyu nga xamante ne si kon euh, daal yéen ñi nga xamante ne si yéen ñuy topp suñu site bi di Buzz SN li leen leen indi bu leen wax nag bu leen fàtte partage te abonné dana yokk doole pass bi waaye dana tax lépp loo xamante ne si am na ci réew ak bitim réew ngeen